الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسأل تسني بروم سبحانه وتعالى di delli siwaat ak yéen ci suñu téere bi ñuy topp muy arisaala bu ibn abi zayd al qayrawaani di fàttali rek ne suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanañu wax ne man yuridi llahu bihi xayran yufaqihu fi ddin ku yàlla namm ci yow aw yiw fokk dalay déggloo sa diine diine nag mënoo koo dégg ca jàngoo ko su ko defee mu bokk ca la gën a barkeel ci sub dund mooy jamono bi nga toogee nga doon ca jàkka jala muy la gën a mat wala nga toog ak la nga xam ne mooy sa portable di déglu la nga xam ne mooy diine ju jóge ci sa boroom toogaay boobee ngay toog bokk na ci toogaay yi gën a tedd yooyu dund ci kaw suuf fa lillahi alhamd tey jii moom mooy le quatorze ci la nga xam ne mooy zulqaada maam yi di ko tuddi diggu tabaski mu tombeeg le cinq juillet ci deux mille vingt ñu nekk suñu fanweeri lu bunt bi ak ñett baabun fi lidda wa nafaqa su dee ni jëloon nañ ci ay bind ba tey incha allah ñu war ca jël suñu bind bu mujj te ñu ngi toll ci li ñuy tuddee wal ihdaadu an la taqra mi ngi noonu an la taqraba al mu'tadda min al wafa wal ihdaad soo yoree mool boo traduction bu xonq bi yaa ngi ci la nga xam ne mooy page cent cent soixante bi wala soixante seize bi page soixante seize bi su dee ne yaa ngi yor samaru baani bi yaa ngi ci quatre cent quatre vingt six nga xool cinquième ligne ba rek mooy ligne bi nga xam ne moo tegu ci ligne bu mujj cinquième ligne bi fa ngay gis wal ihdaadu an la taqraba ma bu dee ne mool bu xonq bi mooy bu dee traduction yu xonq yi yaa ngi page soixante seize nga xool ci kaw rek ci la nga xam ne mooy troisième ligne ba mooy quatrième wala cinquième ligne ba wal ihdaadu an la taqraba al mu'tadda min al wafaati shay'a ala kulli xaal mbokk bu dee bokk nañu ko gis borom téere bi day wax ni wal ihdaadu lii di tinji ci ni ko niñ ko miine ñun am ñu koy tudde muuru an la taqraba al mu'tadda mooy bu mu jegee ki nga xam ne dafa nekk ci idda min al wafaati idda jëkkër jafaatu shay'an min az-zina du doon lenn ci ay taar bi xuliyin na doon loolee dafa nekk ay takkaay aw kuhlin wala mu nekk ay tusngal aw xayrihi wala leneen lu dul loolu wa tajtanibu sibaaxa kulla day muytu mboolem yére yi ñu cuub ci ay couleur illa al aswada xanaa lu dul yére bu ñuul rek wa tajtanibu tiiba kulla day moytu la nga xam ne parfum ya mboola seen wala taxtadibu bi xinaa du nekk it di fuddanoo te la nga xam ne mooy xinaa mooy la ñuy fuddanoo wala taqruba duhnan mutayiba du jege it benn diw boo xam ne nii dafa am parfum bu ci nekk wala tamtashit wala tamtashitu bima yaxtamiru fi rasi du nekkit di fireekoo ci loo xam ne nii day indi ab xet ca boppam ba muy muy parfum mi ngi noonu wa alal amati bu dee ne nag ab jaam la woon wal xurrati wala góor saxiira xale la wal kabira mag la al ihdaad tënj boobu day war ñii ñépp waxtulifa fil kitaabiya doonte ne wuute nañ nag ca la nga xam ne nii moom mooy chrétien wala juif bu doon seeg ab julit ñu ngi noonu mbokk kon suñu bind yi passé ñi ngi doon jàng ay idda idda yooyu gis nañu ne su dee ne da nga soxna si jëkkëram daa faatu war naa toog quatre mois dix jours yoo xam ne du sëy loolu moom mooy temps bi mooy idda bi mooy temps bi tey nag li muy jàngale mooy melokaan ba muy tooge melokaan ba muy tooge loolu la ñuy wax al ihda sun maam yi di ko wax tinj nga noonu tinj wala ñu naan diw de dañuy muuru waaw diw kañ la ñuy muree ko wante ne loolu mbokk ci seytaane la jóge sa jëkkër dee ñu ne da ngay muuru ci seytaane la jóge jigéen daa war a muuru na doon am na jëkkër amul jëkkër jëkkër ja dee na jëkkër ji lu mu mën a doon muuraay googu dafa doon lu la war tinji googee nag mooy lan mooy ki nga xam ne jëkkëram daa faatu ku mel noonu mu daa di toog du jege parfum tekki ay takkaayam du fuddanu bépp yére bu taaru mu moytu ko moo tax mu wax assibaax mooy yére yi ñuy cuub te mooy yére couleur rek ñoom jamono yi ñuy bind téere yi ci gën a cher mooy yére couleur yi donte ne jamono changé na léegi ba couleur boobu amatul effet ci cheraa yu yére wala da ngay gis yére yi la gën a bari couleur sax ay lagos yaag ay yooyu mu la moo la gën a yomb mu ne na sol lu ñuul soo ne moon ci samaru daani ba danaan la ah mooy ko lu ñuul loolu bañ a nekk taaru aw xeet waaye lañ cay tënk mbokk na doon daa jaunam daa ñuulam daa weex problème bi rek mooy yére bi ba mu nekk yére taar ba mu sol yére boo xam ne ni daal kooku gis xam ne daa toilette ak nu yére ba mën a mel nag lay taar ca ñee mën naa bañ a nekk taar ca ñële mun a it na moytu lépp loo xam ne parfum la lépp loo xam ne ay fuddan la lépp loo xam ne ay tusngal la loolu da koo war a doon lu muy moytu te loolu mbokk suñu borom yàlla moo ko def ci jigéen su jëkkëram faatoo mu bañ benn góor di ko teel a jege bay muy mën a am jaxasoo ci famille niñ ko waxoon dar sa passé maadaama moom dee na mënul défendre boppam ci lenn luñ koy tuumaal ciy ëmb bu safaanoo kii fasa jabaram di dund kooku ma mën naa défendre boppam looloo tax islam yemul ci ne soxna si toogal quatre mois dix jours bul sëy waaye da caa boole na ko ñaawlul lépp luy taar tekki ko doonte ne nag mbokk doyoon na waxtaan rek ñuy wax ci biddaa yi ñu dolli ci tenc soo demee ci téere boobu nga xam ne nii Cheikh Nasruddin albani bi ñu ne ko mi ahkaamul janaiz dana fi indi lu jege deux cent bida te mënoon nañ caa dolli cent bida yu xew Sénégal ci xamu ko ala kulli xaal mbokk julit lu ne dañ leen ko digal mbokk ñu li gën a garaaw lu ma ci dégg mooy day julli avant waxtu yi ay rukkoom du rukkoo ba rukkoo ba jeex yooyu mbokk bokk na yi ci gën a garaaw doonte ne li ca garaaw moom ci xat biñ leen di xatal bëri na du fóot lu dul vendredi buy fóot du du du du fete am na ñoo xam ne dañ la leen ajjuma ba ajjuma ngay ngay war a sang ak lu mën a xew xoolal loolu danger ba ca mën a nekk bu timisee doo génn sa néeg say tànk doo ko lem toujours tànk yi day war a tàlli sa loxo doo ko tàllal mën na la kenn xamul ñaata ba bari ne jigéenu sénégalaise jëkkëram dee woon ñu yóbbu ko prison tëj ko léeg-léeg mooy gën a woyef ci moom mu tënc ndax xat-xat yiñ koy indil ci tënjam boobee donte ne ne yàgg na fi ca dog arab ga bu sa jëkkër ma sàndee dañu lay dugal ci am néeg tëj la ci néeg bi pendant un an boo xam ne doo génn doo laal ndox looy def ci néeg bi nga koy defee pendant un an soo un an yi matee ñu jël benn mbote jox la ko ñu ne moom ngay fompoo nga fomp ci moom en général xet bi ngay àndal day dee nga doog a génn nag ñu seet nu ñuy def ak yow un an yooyu islam ñëw def ko quatre mois dix jours waaye quatre mois dix jours yi mbokk jurit leen dong lañ la tere mooy bul toilette sangul na nit ñi doon sangoo solul nañ daan solo la nga xamee ni mooy say waxtu julli dara du ci changé sa doxalin adduna dara du ci changé man ngaa dem liggéey man ngaa dellusiwaat lu dul ne bul fanaan lu dul fi sa kër jëkkër nekkee lii donc ab tënk la donte ni ma leen ko waxee ab xutba spécial moo aju woon ci wax li aju ci pénc loolu mbokk lañu wax ci wàllu googee léegi nag mu ne tinj moom te mooy ñaawlu ci sa jëkkër faatu gor ak jaam ak mag ak ndaw ak ñépp ci bokk yam ñépp lañ sant loolee su ko defee ñu xam ne idda bi mooy quatre mois dix jours tënji gi mooy ñaawlu gi waaw léegi nag chrétien bu dana sëyeeg julit julit ba faatu ndax moom dana iddawu aha kay jàngoon nañ ko ca la passé dañ koy forcer mu iddawu dana toog quatre mois dix jours du sëy ndax nag dana tinji te mooy bàyyi toilette ah loolu moom dégg nga lim ci wax mu ne ixtilaaf da ca am ci borom xam-xam yi am ne borom xam-xam yu ne lañ ko sant rek mooy bu mu sëy amaa nag di ñaawlu loolu moom comme lii diine la du ñuy jaamu yàlla te moom loolu du diineem kenn du ko ko teg am ñu ne ah kay dañ koy teg mu ñaawlu loolu moom beneen affaire la ala kulli xaal mbokk lu dul ni affaire yi idda affaire yu tënj bi foofu la yem su doon tene ne xëy na am na ku ci leen am lu muy laaj bala ñoo dem ci li ci tege wa illaa ñu dem ci li ci tege naam bismillah naam naam naam kulli xaal jàpp naa junj naa ko ci biir wax ji mooy boo demoon gis magum saalum saalum na ko jigéen buy tënj lu mu war a def dana la defal benn liste soixante nga dem jolof mu dolli ci soixante dix nga dem kajoor mu dolli la ci quatre vingt loolu mbokk suñuy aada la ma dañ ne ko sa jëkkër faatu na bala ngaa togg dara tibbi ko say loxo natt ko sa njaboot bu leen bokk ci lekk lal bi da nga koy wàcc tëdd ci suuf mbokk loolu bokk na ci trois cent mbir yi ñuy wax waaye daal yow mi nga xam ne borom xel nga li ñu lay sa li ñu lay wax mooy toog fii di lim tere yi di di di lim li baaxut loolu moom mën nañu fa fanaan waaye xoole li son li lislaam digle islaam lan lay digal kii teen ji lépp loo xam ne toilette la bàyyi ko pendant quatre mois dix jours boo amee liggéey liggéeyil soo amee soxla doxil bul fanaan lu dul kër fa nga xam ne fa la sa jëkkër faatu lii mooy tënkub tinc leneen lu ñu wax lu dul lii soxna caama ko ci dolli mi ngi noonu mi ngi noonu ko defee boo demee dëkk boo dem am nañ soxna su caam soo xam ne moom mooy kuy tënj mooy ñëw assisté la mu bokk lu ci garaaw a garaaw a garaaw nee na ñooy muy ñëw jàngale nu ñuy sangoo farata ak nu ñuy jàppee gars yi loolu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man saa ci gis benn soxna bu ma xam mu ñëw di wax ak beneen soxna na ko man damaa waaru kilifa diine gu toll nii njabootam xamuñu ni ñuy sangoo farat ndax moom loolu muy rôlam ku dee mooy dem di la assister waaye mbokk loolu suñuy aada la waaye safaanoo na ak diine lislaam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah sëñ waaw tinji ndax dañ ko fay li ci borom xam-xam yi di wax mooy tinji kenn du ko fay soxna si benn xabaar daa ñëw bu wóor ah yow de sa jëkkër ji faatoon na trois mois ci gannaaw su boobaa dañ naan un mois dix jours moo ko dese ci tënj gi faatu na quatre mois ci gannaaw kon dix jours lay tënj xabaar yi wóor ñëw na ci ne moom kat sa jëkkër faatu na cinq mois ci gannaaw ku mel noonu dañ naan tënj ga paase na ku mel noonu tënj ga nekk na loo xam ne paase na idée ba paase na bu ko neexee dem sëy loolee moo nekk aju ci wàllu googu ñu mel ne rek tey jii soxna si nga xamee ni nii jëkkëram dafa faatu tey ci suba ci ngoon mu am doom tënj ga paase na mi ngi noonu loolee it la ñuy wax ci wàllu googu mooy daal tënj ji la nga ca fekk ngay tënj la nga ca fekkul doo ko fay wallahu subhanahu wa taala alam naam naam kon ñu jël bind bu bees ah na naam bismillah ah ah waaw bismillah waaw wallaay wallaay wallaay ngo waaw waaw wallaay wallaay loolu la wax am na ñoo xam ne naan da ngay wut neefere mbaam ngoon gu nekk moom ngay suuroo ah très bien gis nga jàmbur jàmbur ba la mu wax salum salum bu dali na ca yeneen moom it ala ala ala kulli xaal moom moom kenn mënu ko lim ah non non non non non loolu la loolu la moom ala lépp lépp foo jëm yaa ngi yor paaka bi yor kii ala kulli xaal moom daal mi ngi noonu daal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ñu mujj ci mbokk bi rek waaw ah tënj bi kañ lay com tënj bi kañ lay commencé mooy bis bi jëkkër ji faatoo donte ne boo demee leen ci mazhab Malik dañ naan jëkk bis bi mu faatoo bokku ci waaye mbokk bis boobu ca la faatu jeex na mooy premier jour am su ko defee bu amee quatre mois bi jour tënj bi jeex na mais lenn ci ñoom dañu naan bis boobee comme nekkul lu mat dañ ne moom dañ koy éliminer ba ci suba ga la ñuy la ñuy compter waaye daal bis faatu ñëpp xam nañ ko le premier janvier la faatu wala ñu ne le premier weeru koor la faatu bis bu ñu compter ba premier ci ñeenteelu weer ba dañ naan ñeenti weer mat na teg na ci fukki fan jeex na loolu daal mooy la nga xam ne mooy incha allah lañ cee jàpp ndax masala boobu la ñuy wax ci wàllu ngénte da ngay gis naan dañ naan bis bu bu mu juddoo lu ci bëri dañ koy bàyyi waaye daal la gën a wér incha allah mooy bis bu mu faatoo ca la ñuy déparé wallahu aalam waa kon ñu jël beneen bind mu ne wa laysa ala al mutallaqa yi ke nekkul ci koo xam ne moom dañ koo fasi warul ci moom ihdaadun la nga xam ne mooy tënj wa tujbaru al xurratul kitaabiya ala al idda waaye nag góorub chrétien bu doon si yëg julit dañ koy forcé mu iddawu min al muslimi fi l wafaati wa talaq day tënji day day iddawu moom te jëkkër ja faatu ak jëkkër ja ka fase wa iddatu ummi waladin min wafaati saydiha xayda su dee nag soxna soo xam ni jaam la borom këram doon ànd ak moom ba doom juddoo ci kon bu borom kër ga faatoo day gore lañ la muy iddawoo mooy benn régal kese maadaama gore ne benn régal kese rek bu ko defee mën naa sëyi wa kazalika ida ataqaha fa in qaadat fi lxaydi wa kazalika ida ataqaha naka noonu it ka nga xamee ne nii dañ koo goreel jàmm jigéen bañ goreel benn régal rek bu ko amee mën naa sëyi waaye nag fa in qaadat an lxayd fa salaasatu ashhur su dee ne moom ba jëkk ba sang ba ko moomoon faatu na wala ka ko goreloon gorel na ko ca moom gisatul règle su boobaa dañ naan toogal ñetti weer doog a mën a sëy mi ngi noonu mbokk day wax fii ne jigéen bu dee dañ koo fase bu dee dañ koo fase su dee fase ba fase bu dog la moom loolu moom fase bu dog la sala fase na ko ñetteelu fase jeex na seen diggante jeex na waaye même bu dee fase boo xam ne bu ñuy delloo la talaaku raj iya ku mel noonu dañ naan dana iddewu quatre mois dix jours amma nag ñaawlu ga ñuy sant ay jabar ya nga xam ne ñu nekk ci buum gi ñaawlu gi moom duñ ko ko sant waaye idda bi moom dana ko matal dana toog quatre mois dix jours doog a mën a sëy loolu mooy tamit la ñuy wax ci jigéenu chrétien ba jigéenu chrétien ba mu ni bu dee ne jëkkëram dafa faatu dañ koy forcé du toog du sëy lu dul mu daal di matal la nga xam ne mooy idda idda boobu mu ne bu dee dafa faatoo wax nañ ko sànq quatre mois dix jours la bu dee jëkkër ji da koo fasa it islam da koy forcé donc te dee islam muy forcé ni ko fi tey waaye bu doon daal dëkk bi l'islam a koy atte jullit takk ne chrétien fase ko fii gisul ñetti baax wala mu gis mu toog ñetti weer kenn du ko permettre mu sëy dañu noonu ko defee bokk na ci tamit lu ñu leen doon wax ci ixtilaaf bi am ci borom xam-xam yi ci idda al quru bu dee ni lu mel ne mazhab malik ñoom dañ ne mooy laab di dox diggante règle yi parce que nañ ko benn laaba ngoog gis na règle laab na ca beneen règle ñëw na muy deuxième ba ñaara ngoog dugg na ca ñetteel ba premier jour ba ñetti laab yi mat na su dee ñeneen ñeneen dañ naan déedéet règle bi la ñuy compter kon fokk règle bi day dem ba jeex mu doog a laab loolu yi ixtilaaf am na ci borom xam-xam yi ndax xuru mooy laab gi wala xuru mooy règle ba ci boppam waaye almuhim daal mooy même bu doon tene ne jigéeni chrétienne la julit moo ko fase kenn du ko permettre mu sëyaat lu dul ne dafa toog iddaam waaye yéen ñëpp yéen a ma gën a xam ne suñu jamono tey jii loolu moom amul jigéeni chrétienne moom ñooy dem di sëy ñoom bu ñu leen fase amuñu benn am ci bu ñu mën a am ci ñoom i ngi noonu gannaaw ma nag lay wax ay atte yoo xam ne daanaka nekkul lu ñuy gis suñu jamono tey mooy kii dafa amoon ab jaamam dagan na mu séeg moom yàlla dogal doom juddoo ci islam dañ naan booy séeg sa jaam bu ci doom juddoo soo faatoo rek soxna si day daal di gore moom lañ ci umul wali day daal di gore maadaama gore na benn régal rek bu ko toogee mën na sëy naka noonu it jaam bi nga xam ni da nga koo yoroon amul doom yaa ngi ànd ak sax moom wala àndoo ak moom bi nga ko gorelee su toogee gis benn règle rek su boobaa mën na dem dugg ci sëy ñu ngi noonu donte ne ni mbokk tinj googu mooy ñaawlu googu yonent bi alayhi salaam da doon tere ñu defal ko ku dul jëkkër quatre mois dix jours amma keneen ku dul jëkkër ndey bàyyi doom islam day tere ñu ñaawlu ko ñetti fan lu ëpp ñetti fan ñu noonu yaay umu salama jëkkëram ja ba bàyyam faatoo ñu teg ci quelques jours mu ne xale bi na ko indil li muy tusngaloo ak parfum ñu ne ko ah lii nag mun a oomu ci benn aajo waaye yonent bi alayhi salaam daf ñu doon déggal ni kenn ci yéen ba mu ñaawlu ci dee kenn lu ëpp ñetti fan waaw sa bàyyi dee na daal sa doom dee na mën ngaa toog trois jours yoo xam ne mën ngaa jooy mën ngaa bàyyi say toilette mën ngaa triste waaye wudul passé ñetti fan amaa nag bu dee jëkkër moom moo faatu yow soxna dañ naan la quatre mois dix jours moom ñaawlu ko mi ngi noonu ca wàll googe kon mbokk ñu jël beneen bind bu bees mooy wa istibraul amma muccal la nga xam ne jaam bu jigéen ñu kay xool ndax mucc na ci ëmb fi intiqaalil milk ca moomeel gañ ko moomoon keneen moom ko xaydatun benn régal dong lañ ko sant intaqala al milku bi bayin aw hibatin aw sabiyin aw gayri zalik na doon moomeel ga dafa jóge ci ma sàmba dem ca ma demba ci jaay guñ ko jaay wala may gum ko ko may wala jàpp guñ ko jàpp ci toolu xare maadaama am na benn règle rek su boobaa laab na ku mu neex mën naa dem sëy ak moom ومن هي في حيازته قد حادت عنده ثم إنه اشتراها képp koo xam ne nii dafa nekk ci saku wàll nga xam ne yow yaa ko fat nga gis ne moom kat gis na ak baax boo xam ne seede nga ko gannaaw baax nga jegewul benn góor gannaaw ba yow nga jënd ko fala istibraa alayha kooku du nekkati di sàkku ndax laab nag laabul ci ëmb in lam takun taxruj su dul woon koy jaam ba nekkoon ne di génn di dem feneen fu mu ko dul gisee wa istibraau sagira fi lbayi su dee ne nag nañuy xoolee xale boo xam ne nii dafa ëmb wala ëmbul ci jaay guñ ko jaay in kaanat tuta'u thalathata ashhur su dee ne tolloon na ci ñu mën a séeg moom ñetti weer lay doon wal yaisa min al mahid thalathata ashhur koo xam ne it passé na règle ñetti weer lay doon walati la tuta'u fala istibraa fiha koo xam ne nii nag tollul fu ñuy ànd ak moom lu mel noonu moom kenn du nekk di di ko seet ndax ëmb nag ëmbul naam mbokk julit mu ne way wa man ibta wa man ibtaa xaamilan koo xam ne da ngaa jënd jaam bu ëmb min gayrihi ca keneen ko ëmbal aw malakaha bi gayril bayi wala boog ñu mu moom ko rek ci lu àndul ak njaay fala yaqrabuha du ko jege nag ci lal wala yatalazazu minha du nekk di ci xéewlu bi cheyin ci dara xatta tada lu dul ni dafa wasin mi ngi noonu mbokk lii ay atte la yoo xam ne niñ ko wax woon ci darsu yi passé rek lañ ciy wax mooy bindoon nañ ko ci téere yi waaye suñ jamonoy tey yi dana jafe lool ñu gis kaa yuñ koy jëfe te mooy ay jaam yoo xam ne dañ leen di jël di jaayee ka mayee ka loolu mi ngi noonu su ko defee daje nañ ak moom ci téere bi dañ koy jàng bu dee dañuy jël beneen bind bu bees mu ne wa sukna li kulli mutallaqati madxulin biha bépp jigéen bu ñu fase ca yow mas nga ànd ak moom ci lal wareef la nga dëkkal ko ba idda ba jeex wala nafaxata illa lillati tulliqat duna salaasa waaye nag jox dépense duñ ko jagleel lu dul koo xam ni fase bañ koy fase matul ñett walil xaamili kaanat mutallaqatan waahidatan aw salaasa amma soxna sa ëmb moom dañ ko war a jox dépense la doon benn lañ ko fase wala ñett lañ ko fase wala nafaqata lil muxtalaati illa fi lxamli jigéen ju suññee koog jëkkëram kookee jëkkër ja amul dépense muy dépense ci moom xanaa lu dul da koo fekkoon mu ëmb wala nafaqata lil mulaa'ina la nga xamee ne mooy ñu rëbbante it soxna sa rëbbante amul benn dépense bu ñu dépensé ci moom wa in kaanat xaamilan doonte ne daa ëmb it kenn du dépensé ci moom wala nafaqata li kulli mu'tadatin min al waf min wafatin dépense it kenn du ko jox koo xam ne dafay iddewu ngir jëkkëram moo dee wala ha sukna doonte ne nag dana ko ñeel ñu dëkkal ko in kaanati daaru lil mayiti su dee kër ga jëkkër jadee moo ko moom aw qad nakada kiraaha wala boog mu fayoon dépend la nga xam ne mooy location ba avant muy dee mbokk kon kii ay atte lay indi kii soxna soo xam ne dañ koo fase mbokk soxna boo ko fasee islam danaal yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dépense ci moom na nga doon dépensé ba baa idde bi jeex su dee premier fasa la wala ñaari la fasa ba waaw bu dee danga koo fasa ñetti fasa la nga xam ne seen diggante jeex na su booba dañu naan la nga xam ne moom nga ko gàddul mooy dëkkal ko dëkkal ko kesi comme naka yàlla waxe fala taxrujuhunna min buyutihinna wala yaxrujna amma dépense dépense kenn du dépense wu ci moom wala mooy li ëpp ci borom xam-xam yi liñ jàpp ngir xadiisu Fatima bintu Qays bi nga xam ni def na sama borom kër day ba ma fasee yonent bi alayhi salaatu wasalaam jagleelu ma dépense bu muy dépense ci man loolu mooy li gën a siiw rawatina ci mazhab Malik mooy jigéen bi ñuy fase ñetti yoon dëkkal rek lañ ko yoral waaye kenn na gàddu lu ko dépense loolu mi ngi noonu boo demoon yeneen mazahib nag am na yeneen luñ ca wax su ko defee loolu la wax ci wàllu googe mu ne bu dee ne nag ay jigéen daa suññi koon ak jëkkëram ñaan na ko baat mu bañ mu delloo ko canam maadaama jëloo na ko canam kookee seen diggante moom jeex na allahuma lu dul fekk mi nga ëmboon soxna moom bu ngeen da ngeen doon sëy mu ëmb wareef la ci yow ngay dépense ci moom ba mu wasin dépense ba ngay dépense moom taxul waaye sa doom ja nekk ci biiram mooy la tax mu des beneen cas kii jëkkëram daa faatu mu war a toog quatre mois dix jours dundam kan moo ko gàddu mbokk dundam jëkkëram gàdduwu ko jëkkëram maadaama dee na kenn tegatu ko la nga xam ne mooy dépense soxna si kay alali jëkkër ja lam ca am muy miiraasam su doon jëkkër ja amul doom kaaru alal ja moo ko moom su doon te ne jëkkër ja am na doom wii ci mu alal ja moo ko moom waaye dépense moom waratul la nga xam ne muy jëkkër ja am ma nag dëkkal gi moom ci bu dee ne jëkkër ja daa bàyyi woon kër kër googee kenn amul droit di ko fa génne lu dul quatre mois dix jours yi mat ñu noonu lu dul quatre mois dix jours yi mat loolee mooy la nga xamee ne nii moom la ñu war a def allahuma lu dul lenn ci borom xam-xam yi sax nga xam na ñoom jàpp ñu ne aaya ba yàlla wax ci baqara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ñoom dañu naan góor sax war wares na bu demoon ba wóoluwul boppam war naa wax sama soxni bu ma faatoo it bu leen kenn génn kër gi fekk un an loolee mi ngi noonu wante ni loolu moom beneen mbir la ci borom xam-xam yi waaye daal la nga xam ne muy lu wér mooy tant que kër gi jëkkëram moo ko moom quatre mois dix jours kenn amul droit génn ko kër gi bu doon it jëkkër ji daa luye woon kër masalan location un an wala location bu mu mën a doon la nga xam ne nii fayoon na ko ci location soxna si kenn amul droit génne ko lu dul temps boobu mu fayoon jeex amma nag bu dee ni jëkkër ji bàyyilu ko loolu su boobaa ñuy doog a dem ci beneen acte mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy rëbbante wala yaas billah mooy jëkkër nee na soxnaam doom bii nga ëmb juruma ko wala nee na gis na ko muy njaaloo su boobaa dañu naan sëy bi tas na amul benn dépense bu ñu koy jox su dee soxna si daa ëmb nag comme waa ji nee na du ëmbam su boobaa it amul benn dépense bu ñu koy jox loolu mi ngi noonu kon loolu la wax ci wàllu googee mu ne naam loolu kon foofu la ñu mën ci njàng mi suñ suñ jëlaatee di ci topp mu ne wala taxruj min baytiha du génn ca këram ga fi talaqin ci fasi aw wafatin wala ci faatu xatta tutimma al idda lu dul mu mat la nga xam ne mooy idda ba illa an yuxrijaha rabbu daar lu dul xanaa borom kër gu bokkul ak jëkkëram moo ñëw na ko génneel sama kër walam yaqbal min al kira ca nanguwul ca la nga xam ne nii moom mooy location ba maa yushbihu kira al misli ci luy dëppoog la nga xam ne mooy location yu tol ne moom su boobaa kon fal taxruj na génn wa tuqiimu fi bil mawdii mu dem nag sax ca place allazi tantaqilu ilayhi ba mu tuxu jëm ca xatta tanqadiya al idda ba baa idda bi di jeex naam mbokk day feddali li ñu waxoon sànq mu ne jigéen buñ ko fasee warul génn fañ ko fasee jëkkëram daa faatu warul génn loo dul ne xanaa dañ koo génne loo dul ne xanaa daal dañ koo génne walla boog kër ga nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon location ba borom kër ga laaj moom mënu ko laaj na ko loo xam ne moom mënu ko su boobaa mën naa génn kër googee waaye même bu dee ne jëkkëram moomul kër gi te moom mën na fay location kër gi islam danaan ko toogal foofu ba sa idda jeex su dee ne it lor am na ba mu génn ci place dem ci beneen place bu mën a toog place boobee dañ naan ko boo fa demee toog fa ba idda bi jeex loolu muy wañu ni jigéen kon bu fëkk faatug jëkkëram fekk foofee rek la war a toog ba idde bi jeex muy doog a dem te lii lépp mbokk mooy sàmm rek la nga xamee ne nii mooy kóllëre ga doxoon ci digganteeg jëkkëram sàmm bañ soxna si di génn génn yu bari loo xam ne dana nekk ay contact ak yeneen i góor ba leneen mën a dox ci seen diggante te loolu it léeg-léeg ñu koy dégg ci ay wala billah ay jigéen ñoo xam ne ci seen tënj ñu leen di déggal ay wax yoo xam ne nii doy na war lool ala kulli xaal loolu mooy sàmm goo xam ne lislaam da koy sàmm ca côté boobee loolu moo aju woon ci wàllu toog ci kër geeg yu deme noonu li ci tege mooy wàllu nàmpal su doonte ne mbokk yi am nañ lu aju ci luñ doon laaj ci li ñu passé avant ñuy dugg ci nàmpal gi xëyrun naam bismillah naam ah ki nga xam ne dafa da nga jënd masque bi rek nga wax ba pare waaw ki nga xam ne dafa dafa rëbb jëkkëram da da da dañu rëbbante waaw jëkkër ji nan lay idda amul foofu idda la nga xamee ne ni moom mooy rëbbante na ak jëkkëram islam dina tas seen diggante tas boobee muy tas seen diggante looli maa ngi wax ci idda amul foofu dana doon kuy iddawu idda ba nag borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf ndax day nekk istibra mooy benn règle lay gis wala fokk man ñetti règle waaye la chaque ne idda amul foofu te la gën a not maadaama même ki summikoonte ixtilaaf boobu moo am ci borom xam-xam yi ndax ñetti règle lay toog wala benn règle lay toog waaye daal du ne moom day mën a delluwaat ci moom du idda bu muy jàppal jëkkëram waaye idda la bu muy xool ndax bu dee daa ëmb moom la chaque ne idda bi ñëpp xam nañ ko mooy fokk mu wasin amma bu dee ne ëmbul su boobaa rëbbante ne ak jëkkëram islam tas na seen diggante su boobaa la gën a mucc ayib mooy na toog ñetti règle avant muy mën a siyante ak beneen góor waaye góor googu nga xam ne moom la rëbbanteel moom seen diggante jeex na ba faw faw faw mënuñu dajante ci sëy wallahu aalam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah xawuma dégg li nga wax de ala kulli xaal daal bu dee ne li ma li ma xam daal moo di ne bépp góor boo xam ne dafa dem ànd ak jigéen ci idda bu dee ne lu mel ne ay mazhab malik moom dañu naan bu dee xam nga ko seen diggante ñoom dañ koy xaraamal ba faw ànd ak nag musiba bu rëy ba nga xam ne def nga ko ndax bu dee ne koo xam ne ni ku ñu fase la bu njaaloo dañ ko war a rey bu jëkkëram dee bu njaaloo dañ ko war a rey kon yow mi dem ba ànd ak moom ci njaaloo googee seen digganteeg seen wàllu diine musiba bu rëy def ngeen ko waaye ci atte bu dee lislaam di tegit dañ naan maadaama da ngaa yàkkamti mbir avant muy yegsi seen diggante dañ leen araamal sëy dootul dox seen diggante mu safaanoon na koo xam ne xamul dañ koo mayoon soxna si mi ngi nekk ci idda gannaaw ba ñu leer ne ah idda bi kat jeexagul ñu ne ah ñu naa kon sëy bi dañ koy tas idda bi jeex nañu mayaat ko ko ñu sëy dara nekkul ci moom waaye bu dee moo ko xam ànd ak moom mi ngi noonu même bu dee ne lenn ci mazammat yi dañ naan même bu ko xamul sax waaye ànd nañ ci biir idda bi dañ ko dañ leen koy teqale ko amma bu dee moo ko xam moom la chaque année ñoom dañ naan dañuy araamal seen diggante wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah déet déet déet sëñ bi xaaral xaaral dañuy dafa am ñaari façon laaj yu ñuy laaj bu dee ci biir dars bi duñ duñ ah waaw kii ci tey kenj bi waaw waaw kenj bi waaw miraas mi ngi commencé fii bay dee tey jii ba fu leen neex bu bàyyi dee daal alal ji moom moomutu ko njaboot gee ko moom ñoom nag ñooy xool kañ la ñuy séddoo seen alal ndax dañ koy def tayam déwénam dañ koy bàyyi noonu gérer ko même bu doon te ne téeméeri at ci gannaaw mu nekk entreprise wala ay tool yu ñuy gérer tant que ñoom ñi ngi dëppoo daal alal ji seen alal la waaye islam tëralul ni nit ki dee na bi sàngam bi sàngam lañ ko war a miraas islam moom tëralul loolu mi ngi noonu léeg-léeg nga dégg nag ay fu naan nit ki fii ak miraas suñ ko du tàlli loolu suñuy wax rek la loolu suñuy wax rek la nit ki moom bu faatoo faatu na alal ji daal alal li njaboot gi la tant que ñi ngi ci dëppoo islam du leen ci wax dara bis bu ñu demee nag bëgg koo séddoo képp ku taxaw na jox leen ma saa wàll dañ ko war a jox wàllam loolu mooy mbir bi mi ngi noonu ah ah Hmm. kenn ba jeexul waaw loolee moom kenn du ko kenn du jaay kër gi wala buñ koy jaay it dañuy jaay dañuy chartoog moom ni soxna si fi lay toog ba kenn bi jeex te loolu it bu suba da ngeen gis ko ko jaay kër ba pare chartoog moom da nga ñu fi bàyyi tant de mois loolu moom mën na nekk mën nañoo jaay seen kër bi charte kañ ko jaay ñu ne ah suñuy soxnay bàyyi kat dañuy tënj bala ñu laa jox kër gi seen tënj mat suñu d'accord ci loolu xëyrul suñu d'accord ci loolu wala ñu wut bañeen pexe waaye daal ñiy tënj kenn du leen génn kër ci naam naam bismillah waaw wala ko li xal weeru weeru julit moom lañuy lañuy lañuy lañuy calculer amul benn atte l'islam bu ñuy calculer ci weeru français amul benn atte l'islam lu dul ci weeru l'islam lañ koy wax moo tax sànq ba may wax ba ne janvier dama ko fa bàyyi ne weeru koor gis ngeen waaw amul benn atte ci l'islam lu dul nit ki faatu ne dañ naan kañ la faatu ñu ne tey le quatorze ci zul qaada ñu defee ñu toll ci zul hijja muharram mi ngi noonu daa di dem ba ba quatre mois yi mat ñu doon jël quatre jours nag teg ci loolu mooy mbir bi ah ñu doog a jël dix jours teg ca quatre mois ya mi ngi noonu su dente ne ñoom lënt na ci ñoom ndax quatre mois yi xamuñu ban moo ci vingt neuf ak trente lënt na ci ñoom dañuy jël la gën a peek dañuy jël quatre mois de trente muy cent vingt jours plus dix jours muy cent trente jours amaana bu ñu xamee weer yi am vingt neuf vingt neuf su boobaa moom la chaque année dañ ko ca war a génne wallahu aalam naam bismillah naam waaw waaw biñ koy waaw biñ koy maye waat waaw biñ koy maye waat ah ala kulli xaal ñaka maye woon ci sëy bu njëkk ba buñ fa nekkee ñoom ñoo gën a yëy ñu maye ko lu dul ne bu dee sëy ba am na ca doom yi majeur doom yi mën nañ maye seen yaay doonte ne du aaday Sénégal lenn sax ci borom xam-xam yi dañuy dem bay jiital doom sax ci baay waaye daal la chaque ne doom bu demee ba majeur baay dong dong moo ko mën a jiitu waaye gannaaw baay kenn yeyul maye yaayam lu mel ne doomam loolu mi ngi noonu amaa nag bu dee amul doom yi majeur kilifa ya ka maye woon ci sëy bu jëkk ba rek la ñuy seet ndax am nañu fa des wala ñu méngoo moom ci kilifteef ñooñu ñoo koy maye waat mi ngi doon wallahu subhanahu wa taala alam waaw ah ah ah can ah kay ah kay jigéen moom kenn du ko takk ci joxoo ko can même boo amoon soixante-dix ans sax fokk nga jox ko jox ko can waa xanaa ñu ñu xool bunt bi sax xam naa ne du fi mën a jeex de alhamdulilah xam naa kon comme niñ ko doon waxante mbokk bi sànq rek mooy bu dee ne ci biir darsi yi moom question yi mi ngi jëm rek ci liñ ciy jàng su dee ne nag darsi bi daa pare xëy na koo xam ne am na yeneen lu mu doon laaj lañ ca yàlla jot a xamloo incha allah mënees na koo leeral dañuy xam ne liñ doon wax sànq ci tënj gi mooy jëkkër rek mooy faatu boro soxnaam tënji ko quatre mois dix jours lan mooy tënji mooy ñaaw lu ko quatre mois dix jours amaa keneen ko dul jëkkër ñetti fan mënoo koo passé loolu it am na ñoo xam ne dañ caa jàpp ne moom bu ñetti fan ya passé moom mënees naa dajaloo togg noos lekk mooy saraxu ñetti fan ak saraxu yooyu waaye mbokk lislaam jubluwul woon ci ne ñetti fan li nga xam ne moom la ñu xewal suñ jamonoy tey ñetteelu fan baag juróom ñetteelu fan baag ñeent fukkeelu guddi baag yooyu yépp dañ koo jële ci yeneen i diine juif yi dañuy màggal juróom-ñetti fan quarante jours ca ñoom la jóge loolu lépp nañu xam ne islam xamut loolu islam mi nga xam daal nit ki bis ba mu faatoo yóbbu nañ ko suul ko jeex na amul leneen loo xam ne nii ab gis la buñ koy jagleel wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam naam waaw waaw ala kulli xaal liñ ci waxoon rek lañ ci répété bàyyi dee na bàyyi moomatul alal ji yéen yéen a moom seen alal alal jooju nag yéene xool ni ngeen koy gérer tant que yéen a ngi mën a déggoo dëppoo ci jàmm am seen diggante bu ngeen dëppoon sax na may nañ ko kenn ci yéen islam du ci wax dara sédd nañ ko suñuy jigéen islam du ci wax dara islam daal fan lay intervenir mooy bu problème amee su problème naree am islam nag indi loi ne hey faatu lii la moom moodu lii la moom su ko defee heure bu ñu demee ba jàpp ne kër gii ñu bàyyi bàyyee woon kat mi ngi nar a jur problème il faut ñu xool ndax kenn ci ñoom dana ko mën a jënd féetewoo ko wala ñu jaay ko ku ne jël sa wàll waaye waruñu koo bàyyi mu nekk problème nekk ay polémique seen diggante waaye nag lañ ko wax woon ni tant que ñoom ñi ngi ànd juboo dëppoo ci kaddu islam du leen wax ci loolu dara mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal ah waaleykum salaam wa rahmatulah
ñetti soxna wala ñeent am ñeenti kër njaboot ba ñu bàyyi leen benn kër booba boobaa bu ñu xoolee ne kër yi moom seen mablax yi ak yëmut ñun ñëpp bu ñu dëppoore ku ne njaboot bu ne demal benn kër bu ñu ko dëppoore ba tey mën nañ ne wéy ko
kii dafa bàyyi ay kër bi mu bàyyee ay kër soxna si ku nekk am nga kër goo nekkoon léegi nag mu faatu bi mu faatoo kër yi yéemuñu waaye ñoom njaboot gi dëppoo nañu ni famille bu nekk kër ga nga nekkoon bàyyee nañ la ko mooy li ma leen wax sànq rek islam daal tant que dëppoo am na islam du intervenir ci dara waaye bu dee kenn ci ñoom bañ na islam danaan déet kon nañ jaarale mbir yi ci yoon yàlla def na miraas bi mu mujj miraas waa ji kër gi yim yoroon bokkul mi nga am kër fii ci benn gox ci Dakar ak beneen gox ci Dakar ak beneen gox ci fële ci Touba kon kër yooyu yéemuñu su ko defee kon luñ mujj def mooy am na famille bu féetewoo kër gi ñee dëkk ca kër gële bu ko defee ñii dëkk fii dañ leen a dolli xaalis ndax masalan rek joxuma prix exact yi wa masalan kër gi cent millions lay jar bee cinquante millions lay jar te njaboot gi nekk fi ñoo yem su ko defee kon dañ naan ñaari kër yi cent cinquante millions lay jar ñu xool ñii nekk fii nu ñuy delloo ñële ala kulli xaal loolu mooy atteb lislaam waaye ñoom buñ toogee waxtaan ci seen biir na ah waa kër ndey diw ak waa kër ndey diw kër gee lañ nekk kër gee lañ nekk li suñ bàyyi defoon léegi ñun d'accord nañu na kër ku nekk jël këram kenn contesté wul islam danaan d'accord comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeen famille bi yépp buñ d'accord ne li suñu bàyyi bàyyi yépp may nañ ko suñu caat mii islam du ci wax dara maadaam yéen dëppoo ngeen ci mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk yaakaar naa ma ne suñu jëm ci julli gi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla barkeelu suñu dund barkeelal ñu suñu faatu nañu yàlla jubaleel suñu njaboot suñu gannaaw musal ñu ci fitna yi adduna dund ak fitna yi dee wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain